ربك بمجنون Touba ca kanam ak Touba Vision ak tous les presses internationales et nationales noo àndandoog yéen ñëw fii ci kër sëñ Touba gii ci Libreville mi ngi nekk nag glace déggoon ngeen ne tàmbali nan ko waaye ku gis lii xam ni kër gi dox nay jéego liggéeyal sëriñ Touba nag yelloo na fu ne sakkane na fu ne waaye nag gënee na Gabon Gabon gii lañ indi woon seriñ bi ne dañuy fay taal bi boo seetee lecture ba nga xam ne Merlin defoon na ko ak Leclerc la lecture des rapports de Moussa Merlin et Leclerc et fait comparaître Ahmadou Bamba a été d'avis et l'unanimité qu'il y avait lieu de l'interner au Gabon jusqu'à ce que l'agitation causée par ces enseignements soit oubliée au Sénégal oubliée nag amul liñ bëggoon mooy ku fàtte Sëñ Touba balaa may dem ci waxtaan wi carrément ñu ngi fi fekk jëwriñ yi kii ci sama ndeyjoor Serigne Cheikh Seck moom mooy jëwriñu liggéey bi dinañu am lu ñu résumé la porte parole kër gi war koo ubbil muy sëriñ Ismaïla mbub di sunu goro nekk ñu fekk ko fii ñuy ay murid Saadix sëñ Badara sëñ Pape sambu waaye na xam naa ni ndékki tey du fi doy ñoom sëñ góor a xam naa ñooñu yaa leen di présenté waaye sëñ ma dibo bi ma njëkkee ñëw Gabon moo ma dalal te moo yor kër gi ak Pape Diop ñoom ñëpp ñuy ay murit saadix kon yaakaar naa jóge nañ làmbar na dem nañ maa yomba waaye ñëw nañ fii ci kër sëñ tubaa gi Serigne Ismaïla ana tey lan ngay ubbee nu jox Serigne Cheikh. asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi rawatina mbokku Touba Gabon ñoo ngi ñaanal Serigne Mountakha Bassirou mu yàgg fi lool te wér. noonee lañ koy ñaanale sëriñ am Amdi Modou mbenn Fall di ñaanal képp kuy jëwriñ te nekk fii si Touba Gabon rek suñ borom guddal sa fan te yokk sag wér li nga yéenee liggéeyal sëriñ Touba Mbacké suñ borom defal la ko sëriñ Maam moor mbaay noo ngi lay sant noo ngi lay gërëm di rafetlu teewaay bii nga teew fii nga teew si Touba Galaas nga xam ne barab bii nga teew wér na la ni mooy suuf si nga xam ne fi la suñ Touba defoon juróom-ñaari at ak lu topp ñu naanal ko fi nag liggéey bi nga xamante ne nii ni ko olof di wax ku iñaane sag ndono sag deewin ñaaw teg ku des dese lii ñu dese nag mooy li mag yi sumboon ngir sumbal ko Serigne Touba Mbacke Xaadim Rasul ndax mbiram du nen du niil mag ñi jël ko nag teg ko ci ay loxoy ndaw su lu toll si ñaari at ba ci ñetti at ñu naan fi këriñ su Touba goo xamante ni toll na ci un milliard cinq cent millions ñu jël xale yi nga xam ne dañ leen a dajale woon bi nu booloo ki nekkoon jëwriñ ci nga xam ne dafa dem senegal mooy bëgg Saliou Sarr mu jëlaat liggéey bi diggante bi mu fiy jóge ak léegi mu jël ko jox ko Serigne Cheikh Seck kii taxaw si sama wet nga xam ne li gën a néew ci liggéey bi te am ci maanaa lool moom moo ko yore di jëwriñ Baye ma Ndiaye di laissez-passer yi nga gis liggéey bi Baye ma Mor balaa nga fiy dugg da ngay dëkk ticket fay 1000 francs doo ko liggéeyal Serigne Touba moo tax muy laisser passer ndax fépp foo fiy dem muy làmb ak muy lu ne da ngay fay kon di liggéeyal Sëñ Tuubaa di fay am na fii si Gabon. ah lii de mi ngi doog am. waaw muy laisser passer ñu jox ko Baye Mandiaye mii nga xam ni moo topp ci jëwriñ ji nekk si jàmbaar di ci góor góorgóorlu waaye du ñu sori dañuy jox Serigne Cheikh mi nga xam ni fekk na démb nekkoon xale ca mag ña tey mu nekk mag ci mbooloo mi moom la ñuy jox li kàddu gi mu yaatal li nga xam ni noonu la liggéey bi tëddee ak fi ñu ci war a jëm ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. ah nga yegg fii ci daara jii di Touba Glace nekk fii ci Touba Libreville di daayira bi nga xam ni moo mag ci daayira yi nga xam ni ñoo nekk fii ci Gabon ndax ñoo ngi ko sos 1973 ci njiitalu Alaaji Modou géey ak mag ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon yàlla def nag ñu jënd ko atum. 2010 leen jënd daayira bi ci njiitalu alaaji Malick Dioum moo ko jënd kër gi moo ko jënd mu tolloon ci 1200 mètres carrés moo dem ba Seck ak ñan ci àndaloon ñoom ñoo ko jënd en 2010 ci 48 millions 2017 nag ginnaaw ba kayit yeeg plan yeeg yëpp noppee ci lan tàmbali liggéey bi ci njiitalu jëwrin sëñ ma Seck moo tàmbali liggéey bi ñu def ci soixante huit million ca yooyu jamono waaye yàlla def mu mage dem dëkk ba bàyyi fi njabootam ñu ànd fekk suñuy kilifa lu mel ni sëñ Baraka sëriñ Massar Gueye sëriñ Modou Niassa ak yeneen kilifa yi fi ne ñoom ñu ni ñu ginnaaw ay mag ngeen ginnaaw ay mag lan dañ leen jiital yéen topp seen ginnaaw ñu ànd liggéey bi en deux mille fin bi deux mille vingt et un ñu tàmbaliwaat liggéey bi waaye boobu fekk na ñoom ñu def ci soixante huit millions yu topp léegi nag ñun ci leen jëlee liggéey bi boobaak léegi mën nañ ne liñ ci sofaat toll na ci trois cent millions nii la ko jëwrin waxee liggéey bi war a nekk ci un milliard trois un milliard cinq cent millions nekk mille deux cent mètres carrés ak baraag bi suñu ginnaaw xam ne dañ ko cee bëgg a dolli suñ ko ci boolee lépp nekk mille cinq cent mètres carrés ndax bâtiment bi suñu ginnaaw institut islamique cheikhul xadim lañ fi bëgg a naal baraag bi ñu tabaxal ko fi jumaa ju mucc ayib ndax loolu mooy yoonu murit fu ñuy sàkkoo xam-xam ak fu koy jëfe ñaar yooyu ci lan ci lan nekk ñoo ngi ci ñetteelu at woo xam ni ñoo ngi ciy góorlu liggéey bi taxawul ci jàmbaaru mbokk taalibe yépp nag ñun ñuy wax ci kàddu jëwriñ sëñ Mamadou saal bëgg Saliou xam ne moo jiite liggéey bi ñu topp ci moom yàlla def jamono jii moo nga Sénégal. dama laaj est-ce que tey bu xalif général des Mourides ñëwoon fii liggéey bi pare. waaw mbooloo mu àndal ndax am ngeen fu ngeen ko dalal. waaw waaw ndax kër gi waajal nañ ci ñaari suite yoo xam ne pour kilifa yu mag yi fi ñëw xam ni suite yu yaatu lay doon ànd ak saal ak lépp mbooleem lu ci lu lu luy méngoo ay hôtel rek yu yu mucc ay bi ñoo ngi ko ciy waajal. ca ci suuf bi dinañ ci def salle boo xam ne salle polyvalente boo xam ne mille cinq cent personnes dinañ fi xaj ndax mille deux cent mètres la suuf gi yëpp daanaka salle la boo xam ne mille cinq cent personnes dinañ fi xaj première étage bi nag moom lañ waajal foo xam ni ñaari ñaari suite présidentielle ak ay yenn yenn cinq suites yoo xam ne suite standard lay doon yoo xam ne ñoo ngi ko ci waajal ngir kilifa yi nga xam ne ñoo ngi njort ëllëg dana mën a ñëw fii ci Gabon ndax événement yi fi am. gars yi bu Gabon am naa fu dal. loolu na ko ñëpp xam kon ñu dem ci biir xool liggéey bi xam na jërëjëfati noo ngi nii ci kër sëñ tubaa gi ba tey dégg ngeen waxi eh, sëriñ Ismaïla Mbuub waaye dégg ngeen waxi eh, bëgg saaliw sëñ Cheikh waaye noo ngi nii toog ak giwriñ eh, sëriñ masaar waaye sëñ Baraka mu ngi fi toog ak leeru sëñ Touba gi nga xam ni mu ngi nii toog ah sëriñ Abdourahmane mbake noo ngi lay siyaat baax fekk giñ la fekk ñu ànd ak nag sëñ Boole Mbay ak sëñ Murtala ak sëñ xaadim ci kër gi kër gi nag li may wax rek mooy man kër sëñ Tuubaa yëpp a ma neex waaye géyam a gënal nag ndax li tax li géyam a gënal mooy e, fii nu ko dëpp la fii ko dëpp pexeb nasaraan yi bu juboon kër sëñ Tuubaa du dem ba am gabon kon yaakaar naa ni dañuy bàyyi sëñ baara kàddu gi e, mu am rek lum ñu résumé teg ko ci kàddu yi ñaari kàddu yi nga xam ne doyoon na sëkk mu teg ko ci ñu bàyyi nag sëñ Bolle Mbay mu bëggal nu tuuti ci xasaayit sëñ yi incha allah. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu kenn ku ci ne sa tur ak sa sant. sëñ Abdourahmane ñu ngi lay siyaar bu baax di la jox sa wàccuwaay ak sa taxawaay bu rafet sa taxawaay bu rafet boo xamante ci dëkk bi ñëpp seere nañ ko ndax fenn foo xam ne mën nañ faa ne bañ na sëñ Abdourahmane mu wax lii kenn mësu koo dégg. te lu ñu woote kenn du fa njëkk kenn du fa mujj kon nag nun rek ne la mën a doxe ne man a taxawee kon ñu ngi lay ñaan suñu borom guddal sa fan eh, te la ak di ñu toog nag muy kër Sëñ Tuubaa eh, lu jafe la ndax bi nga xamante ne dem nañ ba bëgg ko alaaji Malick Dioum moo fekk si Mourtala mu toog mu ne ko barab bi dañoo bëggoon nga ñaanal ñu ba nu jot ci sëñ Mourtala daal di muuñ muuñam googu daal na ko yàlla am na ko incha allah yàlla am na ko yàlla dogal motul at borom kër gi da koy jaay ñu dem ba ànd ak d'accord ak moom ci ñeent fukki millions ak ñett mu dem ba mu yàgg am ñeneen ñu ko bëgg ñoo xam mën nañ ca lu ko duubal ci ah mu ne gis ngeen ñii kat mën nañ ci lépp quatre-vingts millions waaye nag gannaaw yéen jàkka ngeen ko def te man chrétien laa kon yéen laa koy jox waaye da ngeen def quarante-huit millions ma des ñu jël ko. bañ ko jëlee it mag ñooñu nga xam ñoo fi nekkoon muy alaaj Malick Dioum ak alaaj Mama Seck nga xam ñoo jiitoon mbir mi nii ñu taxaw ci lool ba tàmbaliwoon ko liggéey liggéey ba nag diisoon lool bañ def ci lu mat ay soixante quelques millions mbir ma taxaw yàlla dogal alaaj Malick euh, rentré na ñu bëri rentré nañu. léegi nag bañ doxee tuuti ci la ñi nga xam ne ñooñu fare farek ndaw ñoo taxaw ne dañoo bëgg a jëlaat liggéey bi en charge ma ne ah bismillah loolu de neex naa dégg ñu daal tàmbaliwaat ko. kon bañ ko tàmbaliwaatee itam noonu lañ koy doxe eh, ñu ne nañ jiital bëgg saaliwu dafa cal ca Seex Sekk ni ñu ko waxee loolu jaar jarutul jarutul jàll waaye ci maanaa daal nii lañ cuxataawee di ko liggéey ba fi ñu agsi fii fi ñu agsi nii léegi nag ni ñu xamee moom lañuy ñu doxee ñun taalibe yi muy ànd te yàlla tax ànd te Sëriñ Tuubaa tax fii de mépp mbir moo xamante ne bii nit jooytu na ko fi te Sëriñ Tuubaa tax faj nañ ko benn mbir moo xamante ne bii nit ma soo koo jot faj ñu ko musu am da gis fii loo xamante ne bii koo xam ne fii lay nekk feebar dañ koy yëkkati suñu alal faj ko ba mu wér te duñ dem fenn ñu murid yi ñoo ñoo ñoo ñoo takku ñooy takku rek taxaw faj ko ba mu wér. gis murid boo xam ne day wàcc liggéey benn bés lay ñëw daayira wala Moustapha ñëw ay bokkam ooñu jooytuñu ñu oo taalibe yëpp ñu taxaw ci fexe ba mu dem Sénégal yóbbu ko Sénégal kon ànd boobu ñu xam nañ ànd. moom la ci moom la ñu ooyi ñëpp ndax it nag képp ko xaye da ngay wax ne déw ma kër Serigne Touba bokkuma ci daayira da nga amul jafe-jafe rek waaye ku faatu lu mu rëy rëy rëy bokkuma ci doo ci génne ci kër Serigne Touba la ñuy oote kon nag kër Serigne Touba yi ko moomul ñu bëgg képp ko xaye ab murit nga ab nga ab jullit nga nga jàpp ci kër Serigne Touba xam ne kat Serigne kër yi kenn koo xam nekk nga ci di président wala vice président wala nga nekk ci benn benn ndomb tam nga am ko ci ba yàpp ne boo fi jógee day taxaw boo fi jógee de gën a dox kon ñu xam ne ñëpp ko moom ki fi ñëw démb ak fi yàgg am fanweer ñeent fukki ñëpp a ñoo ci am wàccuwaay kon ñu xam ne ñun yaata xataluñu kenn ubbi lañ bunt yëpp yaatal nañu ñëpp ah màggal gi itam niñ ko daan defee rek noonu lañ koy defee bu yàlla dogal ñuy liggéey di liggéey liggéey màggal jot liñ li fi dugg xam nañ ko li ñu yóbbu dañ koy toog waxtaanee ko ay responsable toog ne nañ yóbbu nangam nangam jooje buñ demee nii lañ koy ah, demee ànd Modou Niasse mi nga xam ne moom mooy yor kii moom lañ koy yónnee buñ demee ba àgg ca sëñ Maamoor ñu siyaare ko mu jox ñu ndigal ne xam ne kat fii ngeen jóge ah, ab taalibe fi nekk ci sëñ Tuubaa ngeen jëm su ngeen àggee na ngeen xam ne ngeen wax ak sëñ sëñ Muntaxa ndax mooy sëñ Tuubaa bi wax liggéey bi daal boobu laal suuf li sëñ Muntaxa di wax liggéey sëñ Tuubaa bi daal boobu laal suuf nii ñu toxa nii ñu nii ñu doxee daal ko jëm kanam rek kenn ku ci bana arrière bañ a xeeb sa dërëm bañ a xeeb sa ñaar dërëm ndax yoonu murit li la ko yor wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu amma baadu fa fi nasmina masaliku ljinaani ففي نسمنا مسالك الجنان في خدمة المتحر الجنان عاتي الأبيات من سنني خير خديم المصطفى فإنني أخدم بما استفى من ظنني خير خديم المصطفى فإنني أخدم بما استفى أخدمه إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى من سنان يكون أبدا يردي بالذي كخدمتي بدا فخر الدلال والإدلال ينخاد لي منه بالحلال مدات قبل لدى لبرولي متى ولا عن مثلي كل ولي مداته مدحا لدى ما ينبى ما عيوبي وكف الذنب مدحته عند أناس قلوى متى كفاني العدا والبلوى مني إليه خدمة قد لازمت روضة إلى الخيام عظمت ردياني سبته الجيلاني عليه رضوان الذي أحلاني ردياني سبت أبو الحسن علي رضوان يخلد الحزن ردياني سبته تجاني علي رضوان مبيد الجاني ردياني الخلفاء الأربعة عسر المخربين المتبعة man lam yakun anni yarda fal karim anni radiya anni yaridan laysa yarim man lam yakun anni yarda fal karim radiya anni yaridan laysa yarim jasal ila hul mustafa khayra jaza كما تقبل ووعدنا الجزاء صلاة من كرم يلقاني على الذي دون المراء ألقاني صلاة من كرم يلقاني على الذي دون المراء ألقاني وليرادهم